ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo lislaam bi ñu sunu boroom tànnal subhanahu wa di nuyu it képp koo xam ne mi ngi dégg suñu kàddu di ziyaara nag kilifa bu tedd gi nga xam ne moo darajaal jataay bii di Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Serigne Abdoul Ahad di ñaanalit kilifa ëtt bi nekk ci bopp njabootu sëriñ abdul ahad muy sëriñ sidi mbakke ñu koy ñaanal sunu borom dolli ko ak wér te gën ko fay yàggal mu yàgg taxawee liggéey bi ba yéene yim ci am yépp sunu borom àggaleel ko ko ak mbooleem ñim ko àndal di nuyu mbooleem kilifa yi nga xam ne ñooy saytu liggéey bi di leen ci ndokkeel di rafet rafetlu bu baax ànd giñ ko ànd ak ñoom te mu yàgg lool di ñaan sunu boroom subhanahu wa mu defal ñu ci ngën ci pay dañuy indi lan mooy tarbiya ñu xam ne baat la boo xam ne dafa làmboo ñetti mbir ndax ñett ko siq muy ki yar ak jëmmi liñ jublu ci yar ak kañu yar baatub yar bi nag wolof dafa riche ba boo ko waxee nañ ko dégg nu ne waaye buñ ne tarbiya moom ci jotaay bu mel ñi ci jublu defar nit ak façon buñ ko mën a defare waaye defar ko ngir mu jëm ci boromam batax tax na liñ ci tënkoon lu ci bari du ci xaj ndax doon nañ indi anasiru tarbiya fil islaam jàpp naa ne du mën a dikk dañuy dugg rek ci jëmmi tarbiya ci boppam nga xam ne mooy liggéeyub Cheikhul Xadim radiallahu anhu kon da ñu ngi waxtaane tey liggéeyub Serigne Touba ndax cooco la nekkoon jotoon ci ndigal ci boromam subhanahu wa boo demee ci irwa un nadim bu cheikh mohammed lamine diop ad dagani dang ko ca fek rabbi ashabaka bil himma wala turabbihim bid dars rabbi ashabaka bil himma nak rabbi kon ci la sun borom joxe ndigal ci muy yar ak njabotam ci himma ta bañ leena yar nak ci njagum kess rek ci yeneeni riwaya amna sax ñu cey doli ba wa rabbi kullu wahidin bima yaliqu bihi liggey bobu mu doon liggey nak mom serigne bi nga xamne moko fi indi won indi fi won sax yonent ya ko jitu won ak gaay yu baxé ya. sunu borom defal ko ci ndam lu leer nañ jamono di dox nak ba am ay galankor yu juk jakarlo liggey bobu naka lañu def ba meuna mucc ci pakk yooyu ba wat ci beuguk serigne bi lolou lako mat la lu am solo ndax boo dee xool li tax ñu ne atahadiyat <clears throat> al muasira ci al muridiya lu ñëpp teg bët la ndax boo jàngee histoire yoonu murid benn nga dellu ci mbindum Serigne Touba ci lu téere bu mel ne maxaalixu niiraam te ku mel ne Serigne musaka wala fal ko ci ay ci ay wayam day mel ne contexte bi Serigne bi dikkoon ci jamono ak lim fi fekkoon doon ko xeex day mel ne jamono da ko indiwaat kon loolu mën nañ ko Nah, ay taxaddiyaat ndax lu bari ci lim fi fekkoon te te di ko jàng ci biir téere yi ñu ngi ko gisaat te it bu jamono bi mu dikkee ba biñ ko noppee gis loolu dafa mel tuxu woon na ba gent léegi nag mi ngi mi ngi sanc si waat loolu mooy taxaddiyaat yi man nag damay gën a insister ci buñ tarbiya ñi ngi jublu cheikhul murabbi jublu muridu tarbiya ci boppam doog a ñëw nag ci jëmmi tarbiya bi nga xam ne kenn ku nekk mën na koo déggee nu ne jàpp naa ne tomb boobu buñ ci tënkee li am ci waxtu mën naa am ci xaj sëriñ bi bi mu dikkee jamono dafa fekkoon lislaam waaye nag fekkoon na ko ci melo woo xam ne am na lum soxla la sunu borom subhanahu wa taala waxon ni wali kulli qawmin ha booba fekk na ñim fi fekk soxla nañ ku leen gindi teg leen ci siratal mustaqim soxla nañ ku defar seen ruh soxla nañ ku leen yar yarul islam serigne bi nak jot ndigal ci boromam ci liggey ci liggey bobu niko Cheikh Mouhamadul bashir di netlé waye bimu mu ndigal ci boromam nak xamna jamanom xam ñooñ jamanom xam seeni febar mission bi ko sunu borom joxit mom xamna shaykhul murabbi lan mooy awsaf yi wara dajé ci mom ndax ku nek yar wala dit dedet kon taxaddiyaat yi ñu bëgg indi ci atarbiya ñi ngi koy tàmbulee ci ñi yar te ñoo yar wala ñiy wommat te waruñoo wommat wala ñiy jiite te waruñoo jiite buñ delloo na ci njàngaleem Serigne Touba bim ñu indil melokaanu ñoo ñi nga xam ne ñoo war a yar ndax léeg-léeg nga dégg sax ñu indi tem boo xam ne niñ koy tëggee boo ko dee xool day mel ne du jub ci sam xel ndax cheikhul murabbi moom wala cheikhu tarbiya yi ku ci mat lam doon melo ya war a daje ci moom daje ci moom ab du yàqu te gàllankoor du ko yomb problème bi nag mooy ñi sóobu ci loolu te la war a daje ci ñoom dajewul ci ñoom sëriñ bi nag dafa am ay melo yoo xam ne moom la jàngale ci jëmm jooju ginnaaw bi mu nekkee ci moom moom sëriñ bi mu jëfandikoo ko ci aw nitam ba gis nataa yi mu ci gis ba ca jiitu mooy bokk na ci taxaddiyaat yi ñu mën a teg baaraam ak tarbawiya mooy li ñuy tudde cheikh bu njëkk ak li ñu tuddee cheikh tey dafa wuute ba mel ne penku ak soow ndax Serigne Touba ni mu ko jàngale indi na ci ñetti xeet taalim tarbiya tarqiya kenn ku nekk mu indi ay awsaafam yoo xam ne mënta ñàkk ci moom soo xoolee nag li ci gën a bari nga xam ne mën nañoo wax ne mi ngi am mooy suyuqu taalim yi moom bari na ñuy jàngale boo xoolee la sëriñ bi wax ne mënta ñàkk daje ci moom ci ñoom li ëpp ci kat yi ma ngay am ci ñoom kon ñooñu ña ngay réussir seen mission su yuqu tarbiya yi nag melo yi sëriñ bi wax ne moo war a daje ci ñoom melo yooyu bokk na ci waaj a gent ndax ba ci jiitu jëli jële jëlee jiwuma nag ca hikma waaye dama jële ci yeneen barab mënta ñàkk ci ki ngir bëgg a yare ci diine lislaam mu nekk borom xam-xam mënta ñàkk mu doon borom xam-xam loolu nag même sunu borom subhanahu gis nañ ni ñim daan yebal ngir ñu gindi aw nit jële leen ci lëndëm yóbbu leen ci leer jële leen ci ak réer yóbbu leen ci ak njub da leen di jox téere jàngal leen ko bañ xam ko wax leen melo yi mu bëgg ñooña mel ko mu doog leen a yebal ci ñoom ne leen def leen ci ñoom melo yi sëriñ si nga xam ne ñooy suyuxu tarbiya it buñ xóotalee dëgg nag ci wàllu tasawuf day mel ne am na ci ñoo xam ne daanañ yare te daawuñ jàng waaye loolu moom leneen la liñ bëgg indi fii moom ba tax ñu bëgg indi sëriñ Abdul Ahad Namuzajan daanaka mën nañ ko tudde sax alxiyaada an naajixa buñ jëfandikoo baat boobu sax ci li ñuy gën a mën a liñ bëgg indi mooy alqaid an naajix ki nga xam ne dafa mat aw nit jëm ak ñoom ci barab ba noppi réussir ci lam doon def day laaj ñi ngay wommat li nga bëgg ci ñoom na fekk muy lu nekk ci yow na fekk muy loo am xam-xam boobu yi may wax muy xam-xamu diine sëriñ bi daf cee soññee ba tàyyi ci képp koo xam ne da ngaa jug ngir bëgg womat aw nit jëme leen ci siratal mustaqim buñ xoolee cheikhul xadim radiallahu anhu ci tasawudu subbaan dafay dénkaane ni na ngeen sàkku ji xam-xam yéen ñépp bala ngeen a am soxla ci beru ngir dem ak seen bopp ci seen diggante seen borom rawatina nag beru ngir yilif njaboot goo xam ne dañuy topp ci sa ginnaaw nga di leen digal ñuy def nga di leen tere ñuy bàyyi loolu ci la yaroon mag ñi bind ko bàyyi fi dénkuñu ko ginnaawam léegi nag bu ñu xoolee li ñu tuddee cheikh ci senegal xam naa baat bi dañ ko tënk sax rek ci almuridiya waaye li ñu tuddee cheikh fii ci senegal nga xam ne ay suyuux yoo xam ne ña leen topp buñ xoolee ba ci biir day mel ne gàllankoor mënta féete kaw koo xam ne ferul ijji ku ferul ijji ci l'islam ba nopi bëgg di digle ak téré ku ferul ijji ci l'islam gisu nit ak farlu ci digëntéem ak boromam gisuñ ak farlu ci digëntéem ak boromam ñu xam-xam bu sel bu nekk ci mom gisu nit jëf jo xamne koy jëf jëme ko ci boromam subhanahu wa taala bu mag la bo xamne dem na ba jëmmi tarbiya valeur wi mu amoon cheikhul murabbi amoon ko day mel na léegi ñi ngi koy naax saayal yemuñ ci naax saayal ko waaye dañoo àgg ci jëmmi xam-xam mi nga xam ne mooy conduire lépp am na ñuy taxaw di ko mabbu di wane ne du dara du la am solo nga xam ne jëmmi xam-xam ci boppam am na ñooñ nag xam-xam bi ne ci téere yi lañu lañu lañu diingat waaye dama jàpp ne lépp lu sunu borom màggal wane ni kum ne ci yow doo yama kam nekkul ci moom loola ku samp ngir di ko ñàkkal solo wala nga di ko gentalit ñàkk xam yàlla la wala ñàkk xam wax yàlla bu dee ku askanu ci sëriñ bi it ñàkk xam sëriñ bi digganteem ak boromam la waaye loolu du wax ju am solo man nañoo jàppe loolu benn tomb ci tomb yi nga xam ne mën nañ ko tudde at al muasira lil muridiyya moy gental xam-xam ci walu ñi nga xam ne ñooy ñoo ne ci bopp bi wara wam wommat nit ñi jëme leen ci kanam tomb bobu buñ ci jëlé serigne abdul ahad joxe ci ci mom misal fi serigne touba jaar ci bim tollé ci jang jang alquran ba wattu ko jang xam-xam ba géeju ci mbolem ulum shar'i si abdulahi al ahad la ko serigne touba jaarale kon mom lam ne won فصارعوا للعلم اجمعين لوجه سي الجلال قاصدين موم دا فا جار سي لول نكنا سي العمل بالمعلوم با اغ سي سونو بروم تك سي بوب اسكان وي مودول سين كليفه من لن هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني يون وي سي لا جار با ام لما ام كو اندك من تي لا جار لا غير ام لما ام كوكو مثال لا كون سي كيب كو جوك دي وور كو خامني da nga bëgg and ak mom gi sëriñ bi sa digënté ak sa borom nga sét ci mom mu waasafaat yi ba ci jitu moy sétal mom fan la jaar fi mag ñaarel li ñuy tuddé al adab as suufiya muy ay teggiin Suruh mënta ñak suñu borom daf ko soxla ci ñun ñim yabalon ci ñun jàngal ñu ko soxla ko ci ñun yarkat yi soxla ko ba mënuñ koo ñàkk ci loolu la Serigne Touba di waxe nii aadaab deme na noo xam ne ak am na solo soo xam ne kim nekkul ci moom leneen lu mën a làmboo ci kaw suuf mën na koo bañ a amal njëriñ ba ci xam-xam bii ñuy wax li muy am am solo doon point boo xam ne mënta ñàkk ci dundu nit ki rawatina yarkat bi saa bu nekkee ci moom te lamboowul teggin yooyu ñu tudd Sëriñ Tuubaa nee na du ko jurul lu dul ab coono ak lor rek fa kasratul ilmi bi gayri adabi jaalibatun ila al ada wa taabi adab yooyu nag mooy jural nit ki ginnaaw bu nekkee ci kanam ne day defare mu amee melo woo xam ne ci jikkoom ci ay waxam ci ay jëfam ci doxinam melo woo xam ne kenn du jam lislaam jaare ko ci moom waaye kenn du jamit tarbiya jaare ko ci moom aadaab yooyu manqué na ci ñi nga xam ne ñoom lañ war a yar ci jamono ji ñu toll ku ne xam ne ne jamono ji ñu toll moom soxlawaat nañ lool ku indiwaat téereb Sëriñ Tuubaa boobu muy jàngale tudde ko naxju xadaa alxaaj soxla nañ ku ko indiwaat yeesalaat ko ci xol yi donga yiy jàng waye yeesalaat ko yi nak ci suluku ñi nga xamne ñoo leen di ma jëmale ci seen borom subhanahu wa taala ndax téré bobu kat mag ak ndaw goor ak jigen la ko suñu bi liggéeyal seetu ci nak al shaykh wala al murid ñepp ko soxla wat nañ ko jamono ji ñu toll koku bokk na ci ay gàllankooram nak bokk na ci ay gàllankooram barab yi nga xamne mooy barab yi ñu war a yare muy barab yu bari madaaris yi ci la bokk bu dee liñ miinoon ci tarbiya nag madaaris quraani yi ñoo gën a am tasir ci yar boobu dem nañ ba lu bari gental nañ ko ci ñoom lu bari xañ nañ leen ko ba nga xam ne sañ-sañ bi nit ki doon am ci digganteem ma kim bëgg a defar sañsañ bi mu doon am ci digganteem ak ki mu bëgg a defar ak ruuxam bëgg a defar am xelam bëgg a defar jëmmam amatul sañ-sañ boobu ñi ko xañ nag indi leen leneen loo xam ne mooy def tasir ci ñett yooyu ci seen ruu ak ci seeni xel ak ci seen xol ku ne xam na ni doomu aadama mu neex ko ak mu naqari ko dafay way juróom wu góor ak wu jigéen dañuy jeexital ci moom doomu aadama bu nekk sa ñaari waajur dañuy jeexiital ci yow mu soob la ak mu naqari la barab bi ngay jàngee muy école bi wala daara ji dafay jeexiital ci yow jàngalekat bi nga xam ne moo lay jàngal dafay jeexiital ci yow ñi ngay àndal dañuy jeexiital ci yow ba ci milieu yi nga xam ne moom ngay fréquenté dafay jeexiital ci yow naka noonu dafa am yeneen yuy jeexiital ci nit ki yoo xam ne mën nañ ko tuddee bii a xayru inchaaniya lu mel ne média dafay jeexital ci nit moo xam rajo la moo xam télévision la moo xam internet la ba ci cinéma ak yu demee noonu dafay jeexital ci nit léegi nag yooyu dañoo dem ba nga xam ne dominé na àdduna bi ba yarkat yi la leen daan musal ci bii asaaliha nga xam ne lu mel noonu moo indiwoon sëriñ bi ci barab bii ñu nekk di Touba daw nit ñi ak daw li ci loxoy nit ñi ñëw ci barab boo xam ne fekku fa lu dul ay njaay àll fekku fa lu dul ay njanaaw ak gàncax mu defar ko ba mu sell di leen defar ngir jëmmi yàlla barab bu mel noonu léegi naqari naa tegati bët naqari naa amit te bii ak saaliha lu am solo la ci nit ndax noonu muy jeexitale ci ki nga bëgg a yar su fekkente ne dafa nekk bii ak sayi ayit noonu lay jeexitale ci moom sëriñ bi loolu bokk na ci li ko gën a defal tawféex yi ñam njëkk a génne réussir na ci ñoom am na ci ñoom la bëggoon lépp ngir ku ne xam na ni barab bii jamono boobu ni technologie évolue jamono yi ñu toll nga xam ne ka dem ba ca àll ba gën a sori sañ ci fa def fa daara it yàqkat yi danañu xotti jaww ji wala ñu jaar ci suuf si ba agsi ca barab boobee mu nekk luñ bëgg a gàllankoor ci xeeti melo yi nga xam ne ñamuy yar amee nañ ko danañu ko gàllankoor te du ko xam mbooleem luñ doon aaye mbooleem barab buñ doon aaye nit ki ci biir néegam lañ ko lañ ko fekk indil ko ko way jur wi mën a tuta am li mbëgg ci am njabootam su leen tëjee it lam leen di aaye ci mbedd mi dañ leen fekk ci biir néeg bi jàngalekatu alxuraan bi lu mu jàmbaare jàmbaare xale yi lam leen di aaye ca mbedd ma dana ci am nuñ jigaan indi ko ci biir kër gi tudd ko yëg ndax téléphone yii nga xam ne rek kenn amatu ci pexe te lépp lu nit bëgg a def mën na ko ci def ci kaw suuf kon loolu xañ nañu day mel ne bii ak saaliha bi ñu doon soxla nga xam ne jàmbar dëgg nag moo ci mën a liggéey liggéey boo xam ne dana jëfandikoo wet gi nga xam ne wet gu baax la ndax day mel ne paaka ñaari boor am na wet guy yàq waaye am na wet guy defar su dee jàmbaar dëgg nag mën naa jëfandikoo wet gi nga xam ne wet guy defar la te it loolu mën nañ cee boole yi nga xam ne ñu ngi ko jëfandikoo tey ñun ci lu mel ne jataay bii ñu nekk rajo yi di ko jàllale am na ay jëmm yoo xam ne danañ ko diglu jariñu ci njariñ loo xam ne kenn xamul aw yiw aw yiwam nu mu toll waaye naka noonu nag yeneeni wet la muy jur ci yàq loolu bokk na ci lii gàllankoor yarkat yi muy loolu lépp rek mi ngi tàbbi ci li ñu doon tudde al adab as tombum ñetteel bi dafa bokk ci taxaddiyaat yi yi nga xam ne mu ngi jàkkaarloo ak jëmmi yar ci boppam ku ne xam na ne ab yarkat wala suyuqu tarbiya yi bokk na ci seeni melo seenub liggéey daf daan nekk lu dëppoo ak daf daan nekk lu dëppoo ak alxuraan ak sunna léegi nag buñ seetee da dul xam kan mooy cheikhul murabbi bu na doon laaj ci jamono ji ñu nekk kan mooy cheikhul murabbi yi danga dul xam kan ngay indi buñ la laajee kan mooy cheikhul cheikhu taalim man ngaa waaxu daal di jàpp sëriñ Abdul Ahad Jaxate kii kër cheikhu taalim la ci daara ji la nekk alxuraan lay jàngale li muy jàngale mi ngay koy ballaloo ci alxuraan ak hadis indi melo ya mu mat waaye nag bu ñu nee la kan mooy cheikhul murabbi kan ngay indi ak boo ko indee nag ñu tegal la lii sëriñ Touba jàngale ne mooy aw saaf yi nga war yi nga xam ne daa war a daje ci moom ndax bu ñu seetalee yàlla ndax bu ñu seetalee yàlla bu ñu ko dee indi benn par benn danga ko dana dëppoo ak ak mbiram loolu mooy problème bi. dégg naa kilifa bu baax ci boroom xam-xam bi dëkk bi mu mas cee wax lu am solo ne nañ bàyyi xel ni sëriñ siñ daan wax ci téere yi. bokkut ak sëriñ sëriñu tey sii waaye murit yi ñu daan wax ci téere yi tamit nag bokkut ak muriti tey yi kon suyuqu tarbiya yi ak murit yi ñoom ñépp kenn ku ci nekk buñ in buñ delluwaatee ci njàngaleem Cheikhul Khadim dafa mel ne gàllankoor yi bari na gàllankoor yi bari na de ndax dëppoog alxuraan ak sunna ci melo yi mënta ñàkk la bokk lan moo tax mënta ñàkk suñu borom moo ci alxuraan ne lépp lu leen yonente bi alayhi salaatu wasalaam indil na ngeen ko téye bu dëgër lépp lu mu leen tere na ngeen ko wattandiko wa ma ataakum rasulu fa xuzuuhu wa ma nahaakum anhu fantahu yonente bi it alayhi salaatu wasalaam ci ay ahadisam doon na dénkaane loolu ak di lu jàpp leneen lu wuuteeg loolu waaye bokk yi bu ñu xoolee ci lii ñu tudde ak tarbiya ak li ñu tudde ak suluk ci jamono jii ñu toll bul ko wër ci kër yi waaye del suivre rekk média bi ñi nga xam ne ñooy woote ne ca loola lañ nekk ngay xool yoon yi ñu aw ak melo yi ñu am ak ni ñuy jëflanteeg ñi ñu àndal sa xol dafay jeex sa xol dafay jeex te nag loolu luy màgg la luy màgg la loo xam ne kenn xamul fan la yem te lii sëriñ bi jàngale ci wet googu dama jàpp ne cheikhul murabbi yi mënuñoo wax ne kenn la kudul kañ fekk lu sëriñ Touba jàngale nekk ci moom muridu tarbiya it mënuñoo wax ne kenn la kudul kañ fekk li Serigne Touba jàngale ci tarbiya nekk ci moom léegi nag ñaari baat yooyu dafa mel ne dañ ko médiatiser ba nga xam ne kenn ku nekk am nga daraja ji suyuux si jox nañ leen darajay suyuuxu tarbiya donga yi jox nañ leen darajay murid sadiq te wazaif yi nga xamne kenn ku ci nek wasifa bi war ci mom buñ ko xolé manqué na kon lolu galankor amna galankor yoy yi nak man nañu wax ne amna ci lolu serign bi xamon nako waxon nako yit nak ta day delu wat ci bi njëkk tuddu wa min makaidil laini ayda axzaahu baqin li yudimu fayda saddul muridin an ta'allumi li wajhi rabbina al al alalami li ëpp ci gàllankoor yi mi ngi mi ngi juddoo rek ci neenal lu mëtt a neenal te mooy xam-xam xam-xam moom jamono bu nekk na njëg ne la sun borom waxoon ne xul hal yastawi alladina yalamun walladina laa yaalamuun ba ba saa taxaw du ñu yem afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahda ama yamsi sawiyan ala siratin mustaqim loolu it nag Serigne Touba wattandiku lu wattandiku wattandiku lu na ay yoon sonnon na ci lool it nag ndax moom dafa dafa boole woon ñetti xeet yooyu yëpp nag nekk cheikhu taalim nekk cheikhul murabbi nekk cheikhu tarxiir ñett yëpp dafa daje woon ci moom ñim doon yarit léeg-léeg mu génne ko génn na ñoo xam ne ay suyuqu taalim lañ génn ñoo xam ne ay ay yarkat lañ génn ñoo xam ne ay suyuqu tarxiir lañ coono boobu yi mu ci dajoon nag wattandikulu ba tàyyi top leneen lu dul loolu te lépp loo xam ne topp nga ko mu wuteeg alquran ak sunna loola biddaa lañ ko tuddee biddaa boobu nag daf daan wax ne lépp lu bon lépp aw ay lépp musiba mi ngi ñu dëxëñ ci topp biddaa waaye lépp lu baax lépp luy njariñ mi ngi ñu dëxëñ ci biir topp sunna wajtani bu ahwa an nafsin wabtidaa washtagilu fi kulli hinin bittibaa جمع الخير في الاتباع وجمع الشر في الابتداع دوموا على ارتياد النفس أبدا وحرب الشيطان وصيد للهدى jamono bu nekk mu daan digle ne dee leen sax ci tàggat seen bakkan ak di xeex ak seytaane te rëbb ak nji fu ngeen toll noonu yooyu yi mu tudd na nga xam ne daf ciy tudd bakkan ak seytaane mu des bànneex des àdduna day ñeenti noon yoo xam ne lam waxoon ne mbër dëgg moo mën a mucc ci ñoom te néew na ku mucc ci ñoom te tasiwut ak cheikhul mu rabbi yi mu musal ko ci ñeenti noon yooyu ñeenti noon yooyu ba léegi ñu ngi liggéey bari na ci gàllankoor yi nga xam ne ñu ngi koy am mi ngi juddoo rek ci bakkan am ci yooyu mi ngi juddoo rek ci bànneex am ci yooyu mi ngi juddoo ci seytaane am ci yooyu mi ngi juddoo rek ci àdduna la ca mën a musle nag sëriñ bi waxoon na ko mooy cheikhul murabbi boo xam ne day dox sa diggante ak bànneex xeex ak moom ba ko def noonu bakkan def noonu seytaane def noonu àdduna fab murit bi nag jébbal ko yàlla mi nga xam ne moo ko bind te gën koo soxla ñooñu te diggalu ko lu dul mu jàmm ko problème bi ñu am nag mooy koo kii war a dox suñu digganteeg yooyu la waykat ba waxoon ne tabibun yudaawi nnaasa wa huwa maridu ki war a faje bu feebaree ñi feebar moom lu ñuy yaakaarati ci ñoom loolu mooy dëgg-dëggi problème bi kon taxaddiyaat yi ci al muridiya dafa dem ci ñaari wàll mooy ñi war a yare am nañ problème ci ñooy ñan ñi ñu war a yare am nañ problème ci ñooy ñan ndax yi nga xam ne daana daje ci diggante ñaar ñooñu ñu di ko tudde aadaabu suxba dem nañ ba yàqkat yi yàqal nañ ñu ko indi naa ci léegi alqiyaada li ñuy tudde kilifteef saa bu amul ci diggante donga beeg siriñ bi yar du mën a am te loolu dem nañ ba du ma ne almuridiya waaye réew mi ñu nekk moom xaw nañu ko xañ jamono bu nekk nag gaa yu baax yi ñu ngi ciy def ay waxtaan ak yi ndaje ak di rafetal di jàpp ne mi ngi am ba léegi waaye jamono bu nekk ñu ñu koy gën a xañ am na ci loolu dees ko tudd waaye jamono bu nekk ñi ngi koy gën a xañ jamono bu nekk ñi ngi gën a ñàkk kilifteef nga xam ne ñi war a toppee du ñu toppee te la Sëriñ Tuubaa waxoon ne min aadabil murid suraatul ijaaba su fekkonte ne looloo ngi am ba léegi xoolal guddi yi ñu toll nga xam ne boo dee chiffre média bi da ngay am yaraanga da ngay am kersa ci baat yu ñaaw yooyu dégg yoo xam ne ñu di ko jëme rek ci askan wi rawatina ci njabootu sëriñ bi nga xam ne kenn ku nekk mi ngi daggi aw làmmiñam teg ak ñàkk kersa nga xam ne lam ëmbaloon njaboot gi ci bëggoon a am accès ci ñoom ba wax leen bëgg a wax te mënu ko woon léegi nag day mel ne am na ay benn benn yu leen may accept lu ñaaw lu nekk nga di ko dégg ci ñoom hmm. te pourtant loolu boo xoolee man damaa jàpp ne bokk ci gàllankoor yi gën a ñu dégg ki nga xam ne moo ñu yilif yilif njabootu Cheikhul Khadim gépp lam xool ba ne bëgg ko fii ci dëkk bi buñ ko fi def aaye ko fi ba noppi li ëpp ci njaboot gi daw dëgmali loola wuti ko li ëpp ci njaboot gi daw dëgmali loola wuti ko bis bu set sëriñ bi di wax di wax na waye jamono ju nek ngay gis muy am legi loolu galankor amna ñun ci sun biir bo xamne niñ wara topé war sëriñ bi ak niñ wara dégg ndigalam day melni respect bi dess ba noppi nak ñi nga xamne ñom xeyna ñi ngi ci ñi ngi ci yeneen i dal daal am atu am nañ accept mëna dugg ci sa biir luñ la bëgg wax wax la ko luñ la bëgg def def la ko diggante ak tay yalla seere na ko ak tay maa ngi gis ay ay vidéo yoo xam ne am na koo xam ne moom damaa jàpp ne xëy na dafa wéradi waaye la muy wax ci lu ñaaw li ko jëme ci njabootu sëriñ bi loolu daray àdduna jël ko te ba noppi askanale boppam nag ci ci ci yoonu murit jël may tudd kuréel ba mu ne fa la bokk waaye askanale boppam ci yoonu murit waaye di wax bay dendale ay saaga di tudd ay kilifa loolu ku ne xam ne daray àdduna jël ko. defe naa li ëppoon solo ci jotaay bi euh, wax na ko ci wa di sant si Abdou Khakar yi nga xam ne nii mooy yore jotaay bi ak commentaire yu am solo yi nga xam ne nii dugal na ko ci biir sunu kàddu ni ko si waxoon naa daanele a jëm. tomb yi ñu santoon la ñuy waxtaan ci ñun mooy maanaam jafe wala boog yi dëkk yoonu murit ci wàllu aw dundin bu ñu nee nangam social mooy aw dundin yi nga xam ne ci dëkk yoonu murit te loolu ñu waxee politique day duggaat ca biir. kon ak taxadiyaatu ijtimaaiya wa siyaasa wala boog li ñuy wax défis sociaux ak politique moom lañ bëgg waxtaan ni ko Cheikh Abdoul Ahad moom daan jàmmaarloo ak moom ngir ñu mën caaroy ba xëy na ñun tam ñu mën a jàmmaarloo ak jafe-jafe yooyu défi nag bu ñu ko waxee mooy loo dafay dëkk nit luy dëkk nit tey boo taxawee kanam nit ne ko fii doo fi jaar dañ naan yaa ngi koy défi loolu mooy taxat bi ni bu lay tax dañ naan mooy taxaw sa kanam nga bëgg a jàll la fi doo fi jaar ko mo lay tax di nga bëgg tax dara mo do ko fi defee loolu mooy taxaw buñ koy waxtaanee nak ñu baree bari lepp seen xel day dem ci li jógee ci bit fi la xex li jógee ci bit amna solo lool ñu xam ko waye def yi ne ci bir nit ki mom la nit ki wara jëk xam ndax moy bi gëna mëna galal ko nit moy nga jamar nak sa bok xam yi galal ko sa bir nga nangu ko wat nga nangu ko defara lool moy bi ëpp solo ci doxin doomu aadama motax dañuy wax ne civilisation bu manti doon buy bis buy daan la koy daane du jóge ci bit dañ ne ngi melni tabax tabax ñaare buñ nee ngelaw ko daane dañuy wax way ngelaw laqee tabax bu jaare yon ngelaw mënu ko daane day fekk tabax xam da fett fu nek nga xam ne ni ngelaw day ñëw ngir àggale waaye ngelaw mom bu tabax baaxee ko daane kon défi yi jóge ci bitim bit bu ma galal ko sunu doxit rek da fek ñom ay défi yu ne suñu biir nanguwuñu jàmmal ak loolu nag mooy tax kon li ëpp solo kon mooy nu fexe ba jafe-jafe yi ne suñu biir ñu ñu nangu ko nangoo jàmmaar loolu moom jéem a xoolaat suñu bopp ku nekk na xoolaat sa bopp la mat a jubbanti sa bopp nga jubbanti ko la mat a def jubbanti sa biir nga jubbanti ko bu ko defee leneen lu bu ñëwee du la mën a dara waaye li fekk defuñu loolu moom moom coow li mën naa waaye liy soppi du bari lii lii lii màbb mooy ëpp liy taxaw moo tax bu ñu nekkoon défis sociaux yi nga xam ne nii moo ne ci kanam yoon murit ak nu ko Cheikh Abdoul Ahad moom doon jàmmaaroo moom mën nañ cee tudd yu bare bare biñ ciy njëkkati mooy ñun murid suñu bopp ñooy suñu def bopp bi njëkk ci def yi nekk yoonu murid mooy murid seen bopp ndax ñun ñëpp ay taalibe lañ waaye nekk ñu bare bare ñun boo leen waajoon laa leen sëñ bi li mu nekk te xamut boo ko laajee xamu ko fi la moom mooy gàllankoor bi njëkk ci mbir ndax mu nekk balaa nga caa mën a dox dara da ngay xam li nga nekk lu mu doon waaye ñu bare bare boo leen sëñ bi lan mooy am murid duñu la tontu loolu ñàkk buñ ko ñàkk xam nag mooy a eh, gàllankoor yu baree bare di juddoo ci suñu biir doyeetul ci loolu ku nekk léegi da ngay jéem a wut sa firinu bopp te doo ko delloo ci biir dellu delluwaay ñu dugal ay dégg yu bees la yoo te sore naa ko li sëñ bi doon jàngale loolu boo ko noonu luy ak murid la sëñ bi dee daa ngir xeex ngir dit der bu ñuul garab dëgg la xëy na loolu bokk na ci liggéeyu bi waaye sëñ bi liggéey wees nga couleur ku weex ak ku ñuul ak xonq liggéeyu sëñ bi weesu loolu am ñoo xam sax dañuy dem bay jàpp moom njàngaleem sëñ mi ngi mi ngi mi ci na ngay sa bopp létt sa bopp wala yu mel noonu ba tax sax yenn ci bokk yi nga xam ne nii loolu seen jubluwaay la day ñëw di xentu mbokk ci ñun jàpp ne ñun bokk ak ñoom jubluwaay te fekk na ñun sore nañu lool ay ñoo xam dañuy dem ba naan murit gi daal sëñ bi dafa ñëwoon ngir xeex ak colonialiste te jëfandikoo gànnaay di tekkal seigne bekk ñu ñuy wax Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi ku daan def lu mel non la am ñu dañu may tekkal seigne suñu Nelson Mandela ci xex te jëfëni ko ngànnaay ñaakar na ñooñu nak kuy tekkal ñu ak seigne bi moy xamugo li nga nekk lu mu kon yoyu moy ñak xam li ñu nekk lu ndon lool moy def bi bi nga ni ko ko ko fi lu pour nga andi pour nga randal yeneen def yi dana jafe lool li ci mujj nak moy baatu bamba ji bamba ji mu siiw lool ñepp diko di ko jëfandikoo te muy baat bo xam ni seigne bi ko ko bindu ko fenn xëy na mag ñi buñ ko daan jëfandikoo dañ ko daan jëfandikoo ngir kaf ci seen biir waaye jubluñ coon njàngaleem sëñ bi dëgg-dëgg ndax sëñ bi askanewul boppam ak murit tudd ci mbàkkee tudd ci turam lenn luy tekkal aw turam wala santam sëñ bi bind ko ci yoon murit loolu nag buñ bëggee jël njàngaleem si bëgg koo tënk ci turu sëñ wala sant sëñ bi boobu yaa ngi xatal loo xam ne nii xëy na déggoo ko bu baax a baax ñaari bat la muy jur mooy am na li suñu seex naa wax léegi muy am solo respect bi amoon turu sëñ bi boo gisee ñu koy dàkkantale bi rek naan sëñ beeg ku tedd keeg borom baraat beeg ñoom ñëmuñu woon di tudd turu sëñ bi waxuma laak na nga di ko sàllal léegi nañ fexe nañoo fexe ba ñàkk ku ñàkk xam loolu moo tax tey xale yi sax dañuy sàll lu sëñ maanaam jaar ci turu sëñ bi directement di ko sàllal loolu defe naa ne bokk na ci ñàkk dégg njàngaleem sëñ bi ak ñàkk dégg li nga xam ne nii ci la doon yar nii kon defe naa ne défi bi njëkk mooy ñun suñu bopp ñu jéem a xoolaat li ñuy dund lu mu doon ku nekk buñ la laajee murit gi nga mën a dellu ca cosaan mën a wax ne man ak murit lii ak lii rek fekk na sëñ bi noonu noonu la ko bind moo tax ku mel ne Cheikh Abdoul Ahad ci ay discours daana sonn ci yi mel noonu daana faral di wax ci ay discours am ak murit mooy lan te loolu moom njëkk maanaam Cheikh Mouhamadou Fadil sax wax na yu mel ne ñu fi njëkk ñëpp ci mag ñooñu kilifa yi ku ci nekk da nga daan leeral ak murit mooy lan sëñ bi la daana wax ci baati wala fi leer nañ nangam boo ko noppee tudd nekkatoo murit kon nangam ak nangam di ko leer loolu lañ jubloon mooy ñun li nekk ñu xam lu mu doon ndax nit bu xamul li nekk lu mu doon moom mooy daan gàllankoor bu njëkk ci mbir moomee kon loolu bokk na ci défi yi nga xam ne nii mooy yu njëkk ci la bokk beneen défi ni boo xam ne ko wàllu social la jëm mooy wàllu nos ak organisation nos ak organisation bu ñu ko waxee li suñ seexu naa doon wax yu bari na duggaat ci biir mbir mu nekk buñ ko nosul organiser wuñ ko ngir mu dox dana jafe léeg-léeg na nga dégg ci benn benn ci murit naan la murit du am organisation murit mooy ko amul programme kooku mooy ko xamatul murit maanaam murit dëgg-dëgg mooy nit koo xam ne ni waxtoom daf koy organiser ba nga xam jamono ju nekk ak saa su nekk day xam li muy def fi nekk am na kilifa yoo xam ne nii loo leen gëjëg ya gis da ngay mën a jàpp ba ngay mën a dogu ci ne heure bii sàngam su ma demee sëñ bi nangam laa koy fekk ñuy def loolu nag mooy organisation mooy nosu mooy wax dañ koy organiser waaye léegi ñun gëm loolu nañu li taalibe bi moom mooy ko organisé wul du respecté waxtu du respecté jëfin lara mu nga xam ne moom baat day tañoo koy dem rek loolu nag sore nag njàngaleem sëñ kon défi bi ci topp mooy nu ñuy fexee ba organisé wu organisation boobu nag mën naa ñëw ci wàllu kàddu bi mën naa ñëw ci ni ñuy séddalee ku nekk taxawaay bi nga war a taxaw noonu cee taxaw man-man nun koy coordonné ba man ko suñuy man-man nun koy dëppalee coordonné ko ba man ko jariñu waye tam ñu xam li wax ay priorité liggéey bu nek dañu wara xam la ci wara jitu ak la ca top waye lolu boko deful man nga son la ngay son dom yoy ni ci ci tuddu tuti xolit Cheikh Abdoul Ahad ni ci dañuy wax ne force bépp doole ci mbolo moy kaddu kaddu su fekkee dafa nekk benn kaddu mbooloo su nekkee benn mooy seen force bépp doole waaye dem di jóge ci kaw di wàcc mooy bi ci ëppati doole maanaam ndigal su fekkee ni ko suñu sax doon waxee léegi dafa nekk lenn kenn di ko wax muy jóge ci kaw du wàcc ñeneen ñi exécuté di doxal loolu mooy force bi ëpp ci ëpp doole ci mbooloo moo tax Mamadou Fadil daa na ko wax boo masaan ñëw ne ko dañuy wax ne mbooloo mooy doole mooy ne na la fekk muy mbooloo mu ànd waaye mbooloo bi lu mu bari bari bu ñu àndul seen kàddu nekkul benn seen point faible lay doon waaye duñu am kon fexe ba gi nekk benn loolu mooy défi bi nga xam ne nii sëñ Cheikh Ouna ñëw na ci te muy défi boo xam ne nii bi gën a màgg ci li murid yi jàmmaarlu jamono ji ci toll ndax jamono ji kàddu yi bari na ku nekk di wax maanaam ca sax man naa am sax ñooy wax xëy na seen kàddu wartoon a jóg fa muy jóge léeg-léeg gis kuy joxe ndigal te ndigal la fa ñuy jógee waru foon a jóge te loolu sax na suñu biir ba euh, yu bari dañ koy xet te yu ndaw yooyu ci lay départ mën nañ ci joxe misaal mu tuuti moo xam ne ñi ñëpp a koy dund tey léeg-léeg yow am xale bu gane àdduna sa kër nga dem sa sëriñ bi nga xam ne nii moom nga yaakaar ne ko bis sàngam dama amul tudd sëñ bi bis boobu ñëw mu taal otoom ñëw da ngay bàyyi ba sëñ bi toog ci kaw fauteuil bi nga ñëw déey ko ne ko sëñ bi tudde ko diw kon foofu jërtoon ngay woy sëñ bi ndax moom nga tudd sa bopp loolu mooy xëtt ndigal boo xam ne nii lu tuuti la te foofu la mbir mi tàmbali kon nit ko war a joxe ndigal bu nekk di joxe ndigal foofu la mbir mi tàmbali foofu nag lay rogalaat di rogalaat dem ba jàpp ne yow sa kër yaa a joxe ndigal boo génnee kër ga ñëw ci quartier bi mooy yaatu ba tax ku nekk jàpp ne war nga joxe ndigal misaal la mu tuuti mu sew waaye noonu lay màgge li ñu wax ne boo xeebee aw aw boo xeebee ferñeent mu lakk sa kër wala mu lakk sa dàgg noonu lay demee moo tax kon si seexoon na ñëw ci léegi xàmmeetuñ ki war a joxe ndigal ak ki war a jëfe ndigal ku nekk jàpp nga ne yow war ngaa mën a joxe ndigal te ndigal fenn la ndigi jóge ñun ñu féetewoo di jox ndigal yu bari yooyu nag di jóg ci biir yëf yi nag mooy tax dañuy dem ba respect bi yoon yu amoon murid di amoon ko dañ koy gën di ñàkk bu njëkkoon sëñ bi ñëw na ci léegi sëñ naa ñëw na ci léegi mooy ne euh, baatu sëñ bi kenn mës koo ñëmee tudd ci teg leneen ak noo mën ci toll rek ñëmoo ko tudd ci teg leneen wala ba rawat na ngay teg naka su dul noonu léegi day gis koo xam ne maanaam amul benn wàccuwaay amul benn valeur mooy doon koo xam ne ni mooy ñëw jël ki ñu gën a fonk ci yoon wi teg ci moom loo xam ne nii ku nekk da dangay da ngay da ngay da sa gémmiñ ngir waaw loolu ñun ñoo ci jàppale keneen am na koo xam ne nii nit ñi nekk benn nekkul la ko gënal ñu ne nag kon am na politique boo xam ne nii li ñuy wax farriq tas nee nañ mbooloo boo leen bëggee jiite ñoom ñëpp dangay ngay fexe bañ tàqali ko da ngay wéete ku nekk nga nekk yow doo nga yaa fi nekk ba mu gën moom doo nga fi nekk bu defee nga jéem a exploité ñëpp loolu nag mooy li nga xam ne nii moom la ñeneen ñiy doxale ñun maanaam lañ fexe fexe ba la nekkoon benn ñu tas ko ba ku nekk féetewoo fu yu defe na yow rek mën nga bu ko defee ñu ñëw jëfandikoo la bu ñu noppee dañ jëfandikoo sa morom niñ koy faral di joxe misaal ci ñetti ku yi ñetti yëkk yi nga xam ne ni danoo àndoon bii ñuul weex bii xonq misaal ñu bare dal yàgg nañ ko kon loolu mooy defi bi njëkk ci mbir yi beneen na boo xam ne nii mbooloo mu nekk danoo war a sédd loolu ñu war a def tey buñ ñëwoon fii mbooloo mépp toog ñu ne ñëpp ay waxandoo kon kenn du dégg tey la ñuy wax du am njëriñ kon ñii dañuy wax ñii di déglu ñii di joxe ñii di filmer ñii di def leen ku nekk da ngay am loo xam ne nii moom ngay def ci biir mbooloo mbooloo mi door a dox waaye mbooloo moo xam ne ñëpp ay def lépp moom mbooloo mënta kon jamono ju nekk war nañu wax diw mooy def nangam diw wërta def nangam diw moo war a wax diw wërta wax ku nekk ñu jox la rôle bi nga xam ne nii nga war taxaw loolu tam bu ko deful day tax li ñuy wax maanaam eh, sulam yi maanaam wala boog esal bi nga xam ne nii yoonu murid noonu ñu ko nga xam day commencé ci suuf di yéeg ba ca njobaxtan la loolu dootuñu ko respecté te loolu dafay jur kente ne tey dañ ne yoonu murit sëñ bi bi ñu koy tabax li ñuy tuddee kaas murit kaas yi ñu tabax ci kër yi nga xam ne gu ñax nga xam ne kër gu murit goo dem fekk ko fa bu ñu doon jël misaal ci yoonu murit dañuy mel ne yoonu murit noonu la ko suñ tabax néegu ñax suuf gi day yaatu lool waaye loo gën di jëm ci kaw day gën di sew boo dee ba ca kaw benn pucc nga fay fekk néegu ñax am ñaari pucc ci suñu xam ñun gisaguñ yéen mënu yoonu murit tam boo demee ba ci njaboxtale sëñ bi doo nga fay fekk benn sëriñ moo fay nekk kon nag bu ñuy dox ci suuf jëm ci kaw nag suuf gi mën a yaatu lool waaye li ñu gën a jëm ci kaw muy gën di suuf gën di sew bu ñuy jëm ci kaw nag ay jëwriñ moo fay nekk mbooloo mu nekk day yaatu lool kenn nekk jëwriñ jëwriñ yooyu dajalaat kenn nekk jëwriñ jëwriñ yooyu dajalaat kenn nekk jëwriñ bañu àggee ci njaboxtale la léegi nag li am mooy ñàkk bu ñàkk a xam ku nekk sa taxawaay bi nga war a moo tax jëwriñ yooyu dañ leen fii bët dem ca kaw loolu tam dafay jur ay ndax néegu ñax tey boo ñëwoon dindi balgam di yàgg euh, gayet gi néegu day tas puj ba doo nga mën faa nekkum néeg kazaalika mbooloo mi tam bis boo fexee fexe ba jëwriñ yooyu amatuñ maanaam zaalika mbooloo mi bu tasee yow ñu ko tas da nga bokk te rolu jëwriñ dafa am solo ci yoonu murit sëñ bi am na ñoo xam ne ci nekkam magi taalibe yoo xam ne ñoom xamuñu woon sëñ Tuubaa te taalibe sëñ Tuubaa lañu waaye seen jëwriñ la xam xamoon seen jëwriñ moom la buñu masaan jox moom la ñuy jox bu sëñ bi digle jëwriñ ji leen digal mu ñëw jottali leen léegi li am mooy da ngay gis tuuti koo xam ne sax àggagut fenn danaan man daal sama mbir mi damay def direct ci xalifa général bi mu di ci misaal damay dem directement ci sëñ bi waxal ko sama bopp tëpp fa jëwriñam yëpp loolu lam jur mooy boo demee kër sëñ ba kenn mënatu faa wax soxla kenn mënatu faa dox secret kenn mënatu faa def daal ndax ratrajoo boo xam ne nii doo xam looy def doo xam looy wax te loolu moo ko indi te ku nekk jëwriñ ñi ñu la booleel boo ko respecté woon mooy ci bu baax a baax muy jàllale boobaa lépp dana dox te daal rajo rajo du ñàkk a xam rôle yi loolu itam défi na boo xam ne nii mi ngi jàmmarlu mu kon delluwaat xamaat ne mbooloo mu nekk am na jëwriñ ju nekk seen kanam jëwriñ joojee mbooloo mu dañ ko war a topp ne ci gannaawam moom mu ne ci gannaaw keneen ñooñu ne ci gannaaw keneen ba muy àgg ci njobaxtan la bu ko defee lépp dana dox te leneen du am te mbir ci la daan mbir mi daan dox loolu nag ci ni ko suñ seexu naa waxe léegi ku nekk xam na ne Seex Abdou Lahad liggéey na bu baax ci luy bennale kàddu murid kaddu gi nek jën kaddu na ngir mu nek jën yow mi koy jàllale da nga war am làmmiñ wu leer nañ mën a wax lu leer nañ itam te ñeme li ngay wax bu baax loolu mooy tax kaddu gi mën a doon benn waaye su fekkente da ngay wax ñu lay ci misaal ñu bari jàpp ni maanaam kilifa saa yoo dañ ko war a te jot li ñaare boo ko waral sëñ bi wax ba noppi ñu ne sëñ bëgg doon wax li waa ji doon jot li ma wax li ko nga daal dem génn wax sa waxi bopp kaddu gi daal nekk ñaar dénkaane sa kàddu tam lu baax la mën na fee nekk waaye fi laqiqa maanaam jamono yonent bi jamonoy sëriñ bi jamono kilifa yu mag yi daawuñ dénkaane seen kàddu yonent bi salaam moo daan taxaw ci kaw montagne di wax ayyuhal muslimun ayyuhal naas du waxal boppam ca kaw ñëpp ko dégg sëñ bi basaan soxla mbooloo mi day woote ñëpp toog mu taxaw di wax ñëpp di ko dégg kilifa yi fi jiital noonu la daan def kon dénkaan xay na dara newu sax waaye waaye bokk na ci li nga xam mën naa tax kàddu yi du wuute ndax léeg-léeg itam nit ki dana wax ñu ne moom kat waxi boppam la wax ndax ñu bari dañ boo dénkaane kàddu gi day sol sa bu ba noppi di doxee jikkoom loolu tam dafay am yi loolu sëñ bi moom defoon na ci mbir yu mag moom ndax bu masaan di wax awalan kenn du ko jot li li muy wax dana leer nañ xel ci am lam bëgg a waxi dana ko wax ci façon bi leer nañ loolu tam naa ne bokk na ci li tax kàddu gi may nekk benn ak nag ton bi nga xam ne nii ci nga koy wax ndax wax ju nekk ana fa bu fa àggee da ngaa war a dëgëral sa kàddu fi ngay wàccee ci ngay yëkkatee ci nga kii loolu maanaam waxin la woo xam li ñuy jàngal xam ko ngir nga li ngay wax mën a bàyyi jeexit ci nit ñi ku nekk gis na bu fi nit masaan bàyyi ko maanaam moom buy samp nit ni mu koy sampe yaakaar naa bu ñuy wax samp nit moom ñun lu bari ba xam nañu ndax am nañ ci dund maanaam si eblaan ni muy nit nga xam ne moom bu la xasee samp moom du ci bañ dara loolu tam defe naa lu am solo la loolu tam bokk na ci yi nga xam ne nii def yi nga xam ne mi ci jamono ji ndax léegi kër yu baree bare euh, léegi dañoo am jafe-jafe boobu ndax njaboot gi dafa gën a yaatu te léegi nga gis ñoo xam sax ñaar ñu magante ñoo xam nañu magante lu leer nañu lool loolu dafay laaj baatu kilifa gu ñëw samp ne diw mooy jawriñ ñu kër gi loolu bu amul jawriñ yu bare bare ñoo am ci nit sax waa kër ga mën nañoo dajee samp diw ñenn ci kër gi ko dem samp keneen te loolu mi ngi ñëw ci kanam loolu nag ñoom kon maanaam farlu bi amoon nga xam ne bu kilifa bàyyeekoo ci barab mooy dem samp kam fa war a toog ba noppi dooleel ko dooleel ko wér sëkk buy wax moom lay waxal buy jëflante moom lay jëflanteel waa kër gépp xam ne kii mooy jawriñu kër loolu def naa ci liggéey bi ci la bokk ci def yi nga xam ne nii mi ngi jàmmaloo murid gi ci la bokk te yi ëpp solo ci la bokk ndax léegi njaboot gi day gën di yaatu bu njëkk ay doom ñoo fi nekkoon léegi ay sët ñoo fi nekk ci kanam tudd ay sëtaat ñoo fi nekk danañ dama dem ba ñu ne diw mooy jawriñu kër dana jafe kàddu wat gu mag moo koy mën a samp mu wëy kon loolu tam eh, ci la bokk waaye tam man-man murid yi nu fexe ba organiser ko nos ko ba ñëpp mën koo jariñoo loolu ci def yi la bokk tay buñu nekké ci dëkk bu melni ne wal duñ wax Touba sax waye Sénégal bi sifa xam mouride yi alal nekk seen loxo tay buñu démé ba am murid ñu bindé ko ordonnance ay wér yi mi tak wér do yi mi tak ay mur mouride yépp diko sétan bam dem ci ay catholique ñu diko jëndal mo bu nekk war nga xolaat sa bop war nga xolaat sa bop té loolu mi ngi am buñu démé ba ci mil bir mouride yi xale bu yaayam téla wacc wàcc liggéey muy ab jirim wala muy baye sa xel nekul fenn fudul jël ko dem jox ko ay ñoo xam ay chrétien ñu la koy yaral te murid toog di ko xoolal loolu mooy ñàkk organiser suñu man-man li nekk si loxoy murid ci alal xajut ci seeni i soxla waaye nag organiser ko ba mën koo jëfandikoo loolu mooy défi bi nga xam ne nii moom lañu war a jàmmante sëñ bi ñëw na ci wàllu wàllu njàng meeg yooyu duñ ci ñëwaat sëñ bi ñëw na ci baax mbir mu nekk dem ay priorité maanaam liggéey bu nekk da ngay am fooy tàmbalee lii laay jiital lii laa ciy teg loolu itam lu am solo la misal rek ñu la ci njang tay bo bëggon defaram jang tay da ngay tambalé ci suuf classe bu ñëk ci ngay tambalé di liggéey ba ci kaw waye su fekkee da nga bëgg a def jang la ñëw na ci université lay tambalé jang ma ngay defar du lool moy mooy yaat moy ay priorité bo ñëwé fan lay tambalé lu ma ciy tek bu ma jëm ci ci mëna a koy teg ci li ndax da may a tabax dëkk bi wala da may a tabax nit ñi ndax bo tabaxé dëkk ba mu jag te tabaxoon nit ñi tam la nga tabaxo nit ñokay mara lool tam ay priorité la motax señ sëñ bi mu njëkk moom sëñ Tuubaa bi mu liggéey mi ngi tàmbali ci defar doomu aadama suñ suñ soxna wax na ko léegi defar doomu aadama yi bañ mel ni ñu war a mel mu door a jël ay responsabilité ak seen loxo loolu ci lu ci am solo kon si ebla bu ñu ko bëggoon joxee exemple ci côté boobu maanaam def na ci liggéey bu mag a mag wàllu fexe ba kàddu gi nekk benn ci nam ko daan waxee waaye itam fexe ba ku nekk xam li nga war a def te di def waaye fexe ba fu ñu samp nit mu samp ko ba noppi dëgëral ko ci nam mel képp koo xam ne ngaa jàpp ne war ngaa yor kàddu murid di ci wax te waroo ca wax it bis boo ko waxee nga jàmmaarloo ci moom suñu seexoon naa ñëw na ci baax baax waaye na benn benn yoo xam ne ni dañ daan ñëw dugg ci biir dëkk bi nuroog waa dëkk bi te bokkuñoo waa dëkk bi ay mbir nekk ci biir dëkk bi di fi def def def ay yoo xam ne nii yu yu kiimaane lay doon day wute njàngaleem sëñ bi lool ku nekk gis na matukaay yi daan jël am na nit ñoo xam ne bëccëgu ndara kàmm la leen génnee ci dëkk bi ñu xam leen nga xam dañu leen génne ci dëkk bi ay seen doxale moo tax ñu génne te loolu dem mi ngi ñëwaat mu ngi ñëwaat léegi képp ko doon ab jibarkat Sénégal mën na yaa ngi ci dëkk bi maanaam képp ku doon def kat njaaxum yaa ngi ci dëkk bi nekk ci koñ di fa yëngutu di tuddoo sëñ bi ñu bari xam la ngay def ñu bàyyi la ca loolu te loolu moom jël ci matukaay daana ko def maanaam xamoon na ko lool bi mu ñëwee tàmbale ci liggéey jumaay Tuubaa loolu lu am solo ndax jumaay Tuubaa mooy mooy xolub murid ngay commencé liggéey foofu boo noppee te defar kag bu téere yi boo noppee jublu ci jàngukaay loolu itam maanaam toftale boobu lu am solo la jiital barab jaamukaay yàlla yi teg ci kàggu gi teg ci jaamukaay fooy jàll nga door faa jàll loolu itam liggéey liggéey boo xam ne nii ñëpp xam nañ ko waaye itam ñàkk gi ci biir mbir gi nga xam tey al alal ji bari na fi lool waaye fi laqiqa ñiy dund buñ xëyee nga xam ne daanaka ci dañuy wëndeelu nii rek xeetu yalwaan la ñuy def bari na fi lool ci dëkk bi te moo ne li ne ci dëkk bi ci man man xajut ci waa dëkk bi te sëñ bi laa moom joxoon na ci misaal loolu ñun gis nañ ko ba tàyyi ñoo xam dañuy def rang rang bu gudd gudd di jël pepp wala ñu jël ceeb wala ñu jël dund ci kër gi loolu xam magasin loolu xam na leen xam nañ bu baax ne maanaam jamonoy xew bu masaani lu mel ne tabaski wala yooyu dëkk bi ñu bare bare foofu lañ daan jël xam nga xam ne kon yooyu itam jàppale nit ñi ci ci la bokkoon waaye itam xiir nit ñi ci nangoo liggéey nangoo liggéey ndax nit tam boo bëggee teraanga da ngay nangoo liggéey boo liggéeyee ba noppi nag te amoo nag ñu xam ne su borom moo dogal loolu ñu doon la jàppale wane woon na ci yoon da daan liggéey mbay fonk mbay lool te mbay moo yor moo yorum réew di xiirtal nit ñi ci liggéey kuy liggéey mu lay encouragé ku na wuti liggéey itam mu xamal leen da ngaa wuti liggéey ki mat a dimbale nag nu dimbale loolu itam defe naa ne aw yoon la boo xam ne wane woon na ci yoon kon tey ñun li ñu yor bu ñu ko organisé woon dëgg-dëgg fi la xeex benn mën bi tumuraake du am beneen defe ngi boo xam itam jàmmarloo nag murit mooy ëppal ëppal léegi murit di fi la xeexa ëppal gi foo ko takk wees na maanaam bañ nañ ko sax bu bu ñuy dox sax dañuy ëppal ci dox gi xëlëf xëlëf ak yu mel noonu te loolu dama ak murit mooy ak dal dal moom mooy mooy mooy mooy mooy melokaanu muy bi gën a ràññe noonu du di caagin mën a julli mën a woor wala mën a jàng xon waaye yar bi ak teggin ak dal bi moom lañ ñu xamee moom lañ wutee ñëpp itam fi la xewe te buñ ko ñàkkee amatuñ dara léegi nag yow booy dox doxin nag sax dañaan yow doo taalibe taalibe mooy koo xam ne sol mburu mba day ëpp xëlëf xëlëf yi maanaam loolu itam eh, ak ëppal la ëppal googu tam dafa mat a bàyyi xel ëppal googu nag mooy rogalaat ba dem ba dootoo mën a jëflanteeg ki nga bokkalul pas-pas ci misaal tey day gis koo xam ne nii muritam murit saa nekkul taalibe bi sëñ bi na ci yow moom jàngaliwul loolu man murit laa sama pas-pas dëgër na lool waaye kii du murit dama koy bàyyi a jaar di ca doxal c'est ma ne woon ci yoon ku ne xam na ne suñ mbokk yi bokkalul tarixa dañ ci daan ñëw ku fi masaan ñëw mu teral la teraanga joo xam ne ni boo demee da ngay xam ne murit yii xam nañ teraanga te du la wan lenn lu lay gécceel mbàkke benn waaye mas na wax ne ma kilifaam mas na fee ñëw nee na ma si laat dafa mën gan nee na kilifaam googu bi mu fi ñëwee nee na ma guro gi dong am mbaar la bu ñu sarse ba mu fees 404 baas yi moom lañ sarse guro ba mu fees ne ko sa guro ngi noonu la ca des nag kenn waxaale teraanga jooju nag mu doon wan yeneen mbokk yi lu am solo murit di ko xam ñu xam ne mën nañoo bañ a bokk ak nit ki pas-pas surtout nag ab julli la ñun waaye ci meneen ngir la nekk war nañ koo nangu lam nekk nongul nga li nekk ba noppi nag li ñu sëpp te muy àddina ñu war koo doxal nu mën koo doxal loolu jàngale woon na ci te murid bi baree bari fàtte nañ léegi sax bala balaa nga bala ñoom la neex nga taxaw xas koo xam ne du murid wala yu mel noonu te Sëriñ Tuubaa ne woon na falaa tasxar minhum ahadan loolu la jàngale woon bu ci am kenn koy reetaan te nag ëppal boo ko jàmmarlu ëppal dara du sotti bu nit nekkee extrémiste nga ñëw nekk extrémiste comme moom mbir yi day gën a jaxasoo waaye dara du réglé ngoy ci li nga gëm sa pas-pas bu dëgër nga ngoy ci ba noppi nag nangul keneen ki ne ko moom it mën naa am pas-pas boppam bu ko defee nag li ñu sëq nag muy lu nu war a doxal suñ biir ñu mën koo doxal loolu tamit defee la bokk beneen defee mi nii boo xam ni dam moom mi ngi aju ci ki nga xam ne ñoom moom daloo bokkul euh, misaal tey koo xam ne nii maanaam du jullit kooku tam ci défi yi jàmmaarloog murid gi ci la bokk kooku it am na man man si soxna ñëwoon na ci rek am nay man man am na jumtukaay yu muy xeexe moom it bëgg nañoo gëmloo nañu képp ku nekkul ci li ma nekk da ngaa arrière da nga avancé woo doxoo am njaay àll nga ci tënk am ay valeur yoo xam ne da koo indi ne nii ay valeur universelle la ko tuddee maanaam ay ay ay yoo xam ne nii àddina bépp ci war a dox te fekk na moom ay pas ay cëslaayam leen di bëgg ñu koo teg suñu kaw loolu itam défilé boo xam ne nii ñun war nanoo xool ni jàmmarloo moom te mi ngi dugg ci suñu biir bu baax a baax a baax ci façon yu bari bari boo ko xoolee da ko ci gis matérialisme bu ëpp matérialisme bu ëpp ëpp gi nga xam ne nii nu nga koy dund ci jamono jii loolu dañ nañ ko dañ ñu ko dugal suñu biir ndànk-ndànk ban gëm tey ñu baree bari bu ñu la doon natt sa positif duñ la natt ci sa digg ak sëñ waaye nañ lay natt ci oto ba ngay war wala kër ga nga tabax wala sa salon nu mel wala yooyu ci lañ lay natt te loolu matérialiste googu moom la sëñ bi ñëwoon pour xeex ko sëñ bi ñëwee ngirum tasawuf wépp si taxama ñoom seen liggéey mooy fexe ba nit ki matière du ko gañe loolu nag ñoom fexe nañu fexe ñun ba dugub si biir ba léegi ñun danoo jàpp na ñun bu ñu amee ay gan bu ñu ñëwee luxe lañ leen di war léeg-léeg nga woon luxe koo xam ne nii lam bàyyi moo gën a luxe foofu la nga koy war tey ci misaal tey ñun bu ñu nee dañuy organiser colloque boo xam international ci wàllu gan ña bu ñëwee duñ leen wan lu barab yu rafet ñooñu moom lañ moo gën a rafet ñoom ñu fekk si fii maanaam mbir la xam défi la boo xam ne nii il faut que ñun ñu koo jàngat bu ñu ñëwee ñun loola la ñuy wane buñ leen yóbbu buñ leen yemoon sax lu rafet waaye nañ leen wan ne lii mooy ñun cëslaay yi ñu dund ñun bu defee lañ fay gis ci wàllu matériel nag dañuy xam ne lii lu fi ñëw la nag ñun suñuy cëslaay dëgg dëgg sukkandiku ci matériel waaye nag matériel su góob moom fi la xam ngi dugg suñu biir bu baax a baax a baax te loolu défi boo xam ne nii murid nekk war ngaa xam ne sëñ bi dafa ñëwoon pour xeex ak loolu andi fi ruuxaan yegg boo xam ne nii bu ma sëkk lay doon loolu tam na kon li ñu tax di mën jàmmarloo moom mooy pas-pas bu dëgër pas-pas bu dëgër ndax dañ toog jamono joo xam ne nii fi ne boo amul matériel bu sa pas-pas dëgërul lool lool lool da ngay dem ba da ngay sa bopp tey léeg nga dégg ku ne la noonu de tubaab yi bu ñu tëddoon di nelaw téeméeri at ñuy liggéey duñ leen dab loolu mooy complexe d'infériorité maanaam da ngay jàpp ne yow mënoo dab tubaab tubaab bi mooy kan xalaat du nit yow doo nit ji da war a gëm ne maanaam kii lu mu liggéey mën naa liggéey lu ko raw te am na ay réew yoo xam ne nii ay dragon lañ leen di tudde maanaam ki at yu néew ci gannaaw tubaab bi dañu rawoon fuuf waaye dañu dem liggéey tey tubaab yi dañuy roy ci ñoom boo demee Hong Kong boo demee Singapour ak yeneen réew yoo xam ne nii réew yu ndaw la ñoom bu ci yàgg doon jaay léegi ñu ngi dox ñun nag lu tax ñu nangoo gëm ne ñun buñ tubaab bi doon nelaw téeméer at mi ñu liggéey du ñu leen dab loolu ñu def ci ko mu ne suñu biir te loolu pas-pas moo ko mën a dindi ci ñun am yitte sëñ bi ñëw na ci léegi rabbi asxaabuka bil himma himma mooy yitte positif bu kawe nga gëm ne lii mën naa ko te danaa ko def loolu si iblaat jàngale la ci lu am solo lam daan wax ne soo ne bu nit ñi demul duma dem doo dem waaye boo ne bu ñu demee danaa dem bu ñu demul danaa dem boo geesoo gis sa gannaaw sa mbooloo nit dafa am pës-pës da am tam principe boo xam ne nii bu bu ci faale kenn yow lii mooy sa pas-pas l'essentiel na nga ko dox boo geesoo gis mbooloo sa gannaaw ñu topp waaye nag boo ne damay xaar ñëpp ñu déggandoo kenn du jóg loolu kon ku nekk ni ko suñ waxoon da ngay tàmbale sa bopp kon loolu tam suñ bi liggéey na ci lu am solo waaye tam défi bi nga xam mi ngi ñëw mën naa am sax ñoom ay jullit lañ ne ñun waaye nag am na seen déggin ci wàllu lislaam bu ñu yore ñëw bëgg ñoo wan ne ñoom nañ dégg lislaam ñun noonu lañu ñu war dégg lislaam loolu tam défi la boo xam ne ni mi ngi suñu biir tey ci biir ndaw yi murid yi gaa yi ci ciy fëkk bu baax a baax boo ko waxee nag ñu jàpp ne da ngaa ki waaye ñu ngi ciy jël bu baax a baax a baax ay ndaw yoo xam ne nii ñu xam ñoo xam ne nii ngaa leen di xëcc te lañ leen di xëccee xeetu jàngale ak xeetu ay xalaat lay doon loolu tam défilé boo xam ne nii mi ngi suñu moo tax ñun tam dañoo war a am ay delluwaay boo gisee si eblaat moom bu ma di wax bu weesa alxuraan ak xadis xasida lay teg amul keneen ku muy ñaari baat néewaan na lu mu daan arabal néew na alxuraan sax bu koy jàng suñ njàngeen cosaan yi la koy jàng du ko jàng njàngeen boo xam ne da ngay naaral wala yu mel déedéet parce que loolu lépp jublu ci lu dul ne maanaam nit kële am na lu muy doxe ay aadaam ak cosaan ñu tam ñu am seen aadaat seen cosaan dañ ko war a respecté te loolu bu ñu ko deful la xeex défi boobu duñ ko mën a relever ñu mën a jàmmarloo moom moo tax moom colom da daan national maanaam col goo xam ne nii boo xool da xam ne kii jox na la melokaanu murid toogaayam dañ ko ci daan xam doxalin yëpp boo ko xoolee gis ne kii maanaam am na ay valeur ak ay cëslaay yu muy jàng yu muy fàttali loolu nag défi la boo xam ñun tam war na noo xool nun koy gën a xoolaate gën caa jariñoo mën ko jàng mën ko jàng kon yooyu benn na ci défis sociaux yi nga xam ne ni maanaam mi ngi ci biir murid bi am na yeneen xëy na waaye yooyu dañ ko ci tudd mu nekk ci euh, exemple ci yi nga xam ne nii mi ngi ñëw mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ndokkeel ci jataay bu tedd bii di leen balu xaq di leen balu xaq di ñaan suñu borom mu boole ñu bal nuyoo boobu ñu def ko ci turu Cheikh Mouhamadul Moustapha mii ibnu Cheikh Abdoul Ahad e, di ko tàmbalee di ko jëme ca kilifaam ga e, sëriñ Sidi mi nga xam ne moom la yàlla teg ci bopp njaboot Cheikh Abdoul Ahad te di ko ñaanal mu yàgg lool ci barkeb sëriñ bi e, kaddu gi nag lu jafe lay doon xam naa léegi bi ma déggee sëriñ Abdul Ahad Muxtaar muy tàggoo ci tàggoom bi dama koy daal di àbb def ko mbubb muy luñ ci indi te waruñu koo indi defe naa ñëpp danañ xam ne jógewut ci sëriñ bi suñu matadi lay doon lu ci matit ñu sante ko sëriñ bi li tax muy jafe mooy sëriñ bi dafa def lu jafe daf maa wax ne ah, moom day ginnaaw ñëw nañ ci kër gi xamul sax danañ sàkku mu am kàddoom déet nga xam ne nii mu def nii kii doon wax kii ñu ne dana def ay bayit ci moom xamagut lu muy wax te buggul ku yëkkati dara lépp daa bëgg mu jëm ci sëriñ Sidi loolu rek a tax mu toogloo kee daf ci bi mu daf ne xaw ma sax danaa ci am kàddu su fekkee danañ ma ko ca jox man awuma ci kàddu lépp sëriñ Sidi xanaa kon su boobaa kàddu ga cant lay doon ci ñëw gi ak jëf ji waaye ndigal lu muy joxe ak lu muy tere moom ci ci ni mu jàppe boppam mook donga yi ñoo ko bokk ñëpp nekk ci ron Serigne Sidi kon daa mel ne fa lay alhamdu yéen ñi doon waxtaan te waxtaane ak murit te jël ca Serigne Abdou Lahad misaal te sëriñ Serigne naa wax ko yoon wi mu joxe ko misaal ci néeg suuf gi yaatu te puj ba boo fa demee fekk fa sëriñ Serigne Touba kon loolu dund na fii sëriñ bi nanguwut a yëg dara nanguwut a doon dara lu lépp Serigne Sidé ci màggal gi lañ wax Serigne Sidé jëwriñ ji lépp nañ ko delloo ci moom te ñaanal ko fan wu gudd ak wér loolu dañ cee am xel mu dal lool ci dundaliin woowu bu ko defee nag ci cant goo gi mu wax. Sering bi nee sant na suñu borom bu baax Amati baax a baax amati xel mu dal ndax njabot gi dajé fi waxtaan wi ñu waxtaané dayo bi mu am ak ni mu amé solo te jëm yi ko def ak ñi leen ci taxaw lepp ñepp di njabotuk serigne bi nee na lool yi sant na ci yalla xelam dalat na ci serigne cheikhuna serigne Fadilu Eh, sëriñ bi nee na jërëjeen jëf ci kàddu yi loolu yi sëriñ Abdou Lahat bu sa maxtaar wax muy sàkkul leen ak ñaan dugalaale ci donga yépp def na ko aw sa sasam fas na ko yéene ndax jàpp na ne lii am ba tax dee si ko waxtaane waxul sax bu ñëpp meloon ni yéen waaye bu ñu leen doon déglu sax kon du am ne jërëjeen jëf ci taxawaay boobu jaajëfalit commission bi nga xam ne ñoom la sëriñ siidi jox ndigal lii te it alhamdulilah euh, ab dong day roy ci kilifaam sëriñ Abdou Lahad bu sa Moxtaar wax na ko léegi bi ñu seetloo ni sëriñ siidi di jëfandikoo ci màggal gi ci woote bi ak lu mu doon woo ñëpp bañ ñëw mu joxe kàddoom ngeen jàngee ca loola bind ba di ko yaatal nee na kon loolu moom sant na ci yàlla bu baax euh, ci yaatal goog yi ndax njàngaleem sëriñ Abdul Ahad lu mu gën a yaatu nit ñi gën a jariñu daa mel ne li sëñ seexu naa waxoon daal ci sëñ Abdul Ahad ci mbokk moom yi doon wax ñi lépp sëñ Abdul Ahad dafa mel ne loolu dafa àtte wax ji lépp sëñ Abdul Ahad ndax moo teel a dem wallaahi wax na dëgg man de ànd na ma ak moom ci loolu bu wér a wér kon sëriñ bi Cheikh mohammedul mustafa neena commission bi mi ngi len di sante ci taxaway bobu bu baakha baakha baakha baakha baax di len ci ñaanalit ñaan gogi lu bari waral nako ko nee nay wul tey ba ngeen doye serigne Sidi bam jël liggey bi tek ci seen loxo la tambli won di len ñaanal ndax su ngeen am su ngeen amé ndam serigne Sidi moy am ndam kon tam doon na ñaan jëk tay tey gii it gën ngeen a seral xolam ah ndax indi gi ngeen ko indi fii waxul sax ñi mu bokkal sëriñ Abdul Ahad ci niñ koy waxee ci njureel waaye mag ñoo ñi àndoon ak sëriñ Abdul Ahad fu ngeen ko ci yóbboon dana sedd xolam fu ngeen ko ci yóbboon dana sedd xolam kon bi ngeen ko indee fii eh, loolu gën naa sedd xolam bu baax a baax a baax a baax te xaj na bañ mu ëpp ak di nuru ab woote waaye rëy na ci moom noo xam ne kon bu fekkonte ne ni mu ko xalaate bañ ci luy nuru woote kon dana ko ëppal sax lii ndax léppam day sëñ Abdou Lahad eh, ba tax na lépp lu ñu koy tudd sëñ Abdou Lahad rek su du lu ni màggal gi jege muy bañ mu defaatub woote kon moom jaraloon na ko ab woote ba tax na sant na leen ci jëf ji bu baax a baax a baax sant ca sëriñ Sidi ma yaatal ba mu agsi fii Eh, naka noonu waroon naa ko indi ci tàmbali bi soxna Maymuna ñu ngi koy nuyu bu baax eh, di ko siyaare eh, xanaa ci noonu ngeen ma tudde léegi bu ma dellu siwaatee di kenn ci mbooloo mi donte kàddu sëriñ bi laa yori du tee sëriñ bi ñu seddeel ko ñi wax lii ñu wax day liñ mën a wax waaye liñ bàyyi moo ko ëpp fu mu gis ku yëngutu ci sëñ Abdul Ahad defoo na la def la ci boppam taxaw taxawaay bu mat sëkk kon toogaay bii wettali sëriñ bi daf koo feddali eh, kon daal mbooloo mi nañ xam ne sëriñ bi nee na su amoon kàddu yu ëpp am na mbégte tey jii kon dana dana ko joxe na ñépp xam ne am na mbégte muy waa commission bi fi ñëw muy njabootam gi bokk sëriñ Abdou Lahad te ñëw teewal si ko ci bis bi waaye njaboot gi doxale ko seen digganteeg sëriñ Touba te mu dënkoon leen liggéey bi te ñu rafetale ko ni sëriñ bi nee na jërëjeen jëf ci ñépp yàlla mi taxoon ngeen di liggéey ak jëmmi sëriñ bi yàlla na ko nangu te fay leen ci lu kawe njort ci barkeb sëriñ Touba kon sant na bu baax a baax a baax a baax